léegi man maa ngi tudd Seydina waaw léegi man comme ni mu leen ko waxee maa ngi bokk si membre membre fondateur consortium jeunesse Sénégal quoi donc ñun ak SEDEPS bi ah, dañoo def benn partenariat si la ñu rénover centre bi ba pare ñu def ay programme d' accompagnement des jeunes xam naa moo tax ngeen ñëw centre bi ngeen gis décor bi ngeen gis table gis théâtre de verdure bi ngeen gis médiathèque bi ak loolu léegi man nag tey li ma intéressé particulièrement mooy dama bëggoon am yéen seen gis-gis xam nga nan ngeen gisee centre bi ak yéen tamit en tant que ndaw nan ngeen gisee seen tey seen i ëllëg donc affaire bi mun na nekk en français mun na nekk en wolof mun na nekk en chinois yeneen seet làkk bi ngeen gëna nekk à l'aise ah du noonu ah léegi li ñuy def tey dañuy jaamay jàllale affaire bi ku nekk mu présenté wu foo dëkk xam nga noo tudd ban classe ngay def foo dëkk xam nga ak fan nga gis sa bopp dans dix ans dans dix ans nii fan nga gis sa bopp quoi comprendre ma commencé ba Baye Sall ac Baye Sall bismillah Baye Sall ac da ngay wax da nga wax noo tudd rek noo tudd Serigne Saliou si naka Serigne Saliou Serigne Saliou Serigne Saliou si tagal tagal sa téléphone tagal sa téléphone bi Serigne Saliou si waaw oh. fan nga dëkk man Guédiawaye wax na Nimzat Guédiawaye wax na Nimzat ban classe ngay def quatrième A quatrième A yaa ngi ban école. Dabax Malick groupe scolaire Dabax Malick léegi yaa ngi yaa ngi soogee ñëw fii nii si centre bi. man ma fi ñëw bëri na tey. depuis bi ñu ko defaree wala depuis euh, depuis bi centre bi nekkee fii. depuis bi école tijjee rek. depuis bi école tijjee quoi léegi yow mooy sa gis-gis si centre bi. Eh, baa leen jàmbur. ah fii moom ah. wax dëgg fa yàlla neex waa. Ah, wax dëgg fa yàlla. eh baa leen jàmbur waay sama gars yi. espace ba xamante dafa aéré quoi neex naa toog di. même boo jàngu sax mën ngaa toog jàkkaaru géej gi nii rek toog di manipuler sa cours quoi. léegi la moo tax nga ñëw fi yow. man réviser ma fi indi ak recoupé leçon daa mel leçon xam te ni sama kay yi nga sàccoon quoi <laughs> sama kay yi nga sàccoon sama kay yi nga sàccoon quoi ah, moo tax nga ñëw fii pour réviser acca acca acca rafet na léegi yow fan nga gis sa bopp dans 10 ans yow tey dans 10 ans 2032 saa yow si nan ngay gisee sa bopp ah. quoi si réew mi waaw si réew bi ah, non non man moom. baa leen jàmm bu baax bàyyi leen jàmm mu tontu waaw 2032 tey soo yeewoo nii 2032 nan nga gisee sa bopp quoi. ah war yor sama yëfu bopp rek war a takk jabar jublu si takk jabar. jublu si takk jabar. waaw sa yëfu bopp quoi sama yëfu bopp kenn du ma dugal si ay kenn du ma ni comme ay sama kër ga nekk dama ko xoolee quoi genre. yow lan nga gën a bëgg. man. est si affaire ay faux ay football yooyu. si activité rek si manière générale lan nga gën a bëgg quoi. dawal vélo dawal vélo ak lan ak lan eh bàyyi eh comme muy lañ jàmm dawal ak lan. kase ak. kase ak ay tournée ay pitin genre yooyu. ak affaire yooyu sport ah? moom vacances jotee moom lay business quoi vacances jotee. moom mooy business. da si da xaalis. waaw comme lan nan nan ngay pour lekk si ay jëndee ko ay vingt mille ba quinze mille. mu ah. nga xaaj jaay après ay trente moo la jox départ waaw léegi boo jaayee après nga jox ko ah, nga génnee vingt mille nga jox léegi bénéfice léegi après des fois nga jox ko bu yore nga jox ko ah, xam ni ñuy defee business quoi loolu yow mun nga xoolee sa bopp rek ëllëg si biir nga ne yow businessman nga nekk te commencé nga xool mais tamit bu classé waxuma comme nga xam ne nii xam nga ma ngi jàng quoi businessman bu classé bu classé quoi waaw ah, waaw nag loolu nag bi léegi nga koy commencé kii du xale de ah. léegi si kal la ñuy dem si kal lañuy dem. non waaw si kan la ñuy dem kaay kaay kaay kaay ñaan ñaan ñaan acca bismillah bismillah noo tudd. Cheikh Cheikh Niane. Cheikh Niane foo dëkk. Géejawaay wax naan Nimzaat. ban classe ngay def. ban école. lan moo la andi si centre bi. fii ñoo fi toog réviser rek. ah nga fi ñëw avant avant ñu koy defar ñu koy defaraat. vacances école bu mu tijjee eh, nga fi commencé ñëw léegi yow la mooy sa gis-gis si centre bi noo ko gisee. xam nga centre bi nu mu tudd est-ce que. waaw la ko la tudd. CEDEPS bi. non le CEDEPS bi quoi mais centre bi am na tur quoi si bunt bi nu ñu ko tuddee. centre de jeunesse. waaw mais. centre yaakaar la tudd quoi. non centre déedéet affaire de politique de centre yaakaar <laughs> centre yaakaar quoi léegi man après soo leen présenté woo yéen ñëpp man dinaa dinaa leen expliquer ñun projet bi quoi comprendre posel sa téléphone bi posel sa téléphone acca yeggali bis léegi euh, lan laa doon laaj centre yaakaar la tudd quoi léegi bi fi ñëwee la moo si sa gis-gis. fii eh, na. déglu leen eh déglu neex na toog feelu. neex naa toog hmm. révisé neex naa def lépp. léegi yow fan nga gis sa bopp yow tey 2032. 2032 mu baax rek. mu baax rek mu baax c'est-à-dire mu baax loolu yomb na ñëpp kañ mu baax la ñuy ñaan yàlla mais yow lan nga gis sa fan nga gis sa bopp quoi 2032 nii instant yii ñaata at nga am. man 14 ans. waaw ah, donc 2032 yaa nga am 24 ans. waaw ah. yow fan nga gis sa bopp 24 ans normalement yaa ngi jàng wala commencé nga liggéey yow fan nga gis sa bopp quoi soo amee 24 ans. su ma amee 24 ans. man maa ngi commencé. maa ngi dem football. yaa ngi commencé dem football yow football nga bëgg doon. oh non ok sport sport nga bëgg doon def quoi. Ah. mais est-ce ngi football instant bii nii. waaw ah. da nga nekk si école de football ban poste ngay football. centre droit. centre droit kan mooy sa joueur favori. Mbappé. Mbappé Mbappé dafa tàng de gisoo dem bii bi mu dugal xanaa gis nga bii bi. gis naa ko kay. Ah. kan mooy si <laughs> jox ko jox ko acca Rama léegi noo tudd. Ramatoulaye Marika. ban classe ngay def. sixième A. sixième A ban mhm. école. baax Mbali. da wax bu baax ñaata at nga am. treize ans. treize ans. Mhm. ngay lan moo la andi si centre bi. en fait centre bi euh, euh, dafa yaatu en soo fi ñëwee mu nga réviser. Mm. Mhm. mun nga réviser quoi. Mm-hmm. ok léegi fan nga gis sa bopp fii ak fii ak fii ak dix ans quoi. kii um, lay kii laa bëggoon def armée de l'air. armée de l'air pilote mm-hmm. Mm-hmm. yal na la yàlla jàppale nga nekk si si kii bi. amiin. léegi. sama euh, gars eh, sama gars yi eh, ñuy déglu wante waay euh, lan laa bëggoon wax. Euh, léegi xam nga centre bi exactement lu muy def yan activité yi mooy am si centre bi. Ah oui xamoo ko. comme yan yan en plus sant bi dina am concours de danse. Ah, ah. Euh, en plus am na informatique. am na salle de couture. en plus am na fu ngay réviser. noppi leen. ak salle de danse tamit. <laughs> am nga fu ngay réviser. fu ngay réviser quoi. Uh-huh. kan mooy wax léegi après. Mass waaw. non jox jox ko jox ko. gën a eh. am ay questions. Ah, waaw non loolu la ñuy def mais sama gars yi xoolal eh. ah, sama gars yi wóor mu neex non mi mi ngi dem suñu bëggee mu neex dañuy déglu woon te ñu xaw a sérieux tuuti rek ah. yàggu dimbali leen ma rek yàggu laa. Mm-hmm. acca ko saa yi. tegu na fii waaw. loo ci xam. xam ne dara baaxul. Habib day leen di enregistré nii de. muy sama nag. acca acca acca yaay ñu déglu wante li ngeen di wax yëpp mi ngi leen di enregistré nii. donc nañuy sérieux rek ñu déglu wante rek xam nga acca noo tudd. waaw en fait maa ngi tudd Pape Birima Mbaye. Pape Birima Mbaye. ñaata at nga am. 14 euh, ans. 14 ans. Ah, ban classe ngay def. quatrième. quatrième fan nga dégg Guédiawaye. fan fan exactement. Waxinaan Waxinaan. Euh, yaa ngi soogee ñëw si centre bi. Ah, yaa ngi soog ñëw. lan moo la fi andi. centre moom moo fi indi moom pour réviser. réviser quoi lan la xanaa xanaa ne yombul pour nga réviser seen koñ. non non loolu yombul en fait loolu yombul quoi da ngay ñëw da ngay ñëw fii pour réviser parce fi fii dafa wéet. dafa wéet dafa calme quoi dafa wéet calme waaw. ok fan nga gis sa bopp dans 10 ans 2032. dans 10 ans. waaw. Ah. instant moom dans 10 ans moom bëgg na naa fekk. bu ne ma fekk ma signé pro quoi. ah yow tamit footballeur nga bëgg doon. footballeur laa waaw. ma signé pro ma signé pro. milieu terrain. milieu offensif. milieu yaa ngi jàng tamit ba léegi noonu. maa ngi jàng waaw. léegi xam nga yan activité moo am si centre bi. non leen ne ah. kan mooy wax nag ci stop kan mooy présenté. aja aja aja noo tudd waxal sa tur. man maa ngi tudd Mouhamed. waaw da ngay wax bu baax de. maa ngi tudd Mouhamed. Mouhamed Kanouté. Mouhamed Kanouté. waaw ok ban classe ngay fan nga dëkk. man wax naa ni daal. wax naa ni daal yow yaa ngi soogee ñëw si centre bi. non. maa ngi doon ñëw lii uh-huh. bi. waaw ah, centre bi fii nii baax na non nan nga ko xamee nan nga def ba xam ne centre bi nii la mel pour nga mun toog réviser fii quoi. non sama benn sama xarit laa àndoon fii quoi. Hmm. ak ñi leen ñi ñu toog fii daal gis fii fii rafet na quoi calme na mooy loolu di nga jàng di nga def daal seen soxla yooyu noonu saa ñu déranger la. léegi yow dans dix ans fan nga gis sa bopp. man waaw. Ah. xamoo leen dans dix la ngeen dugg doon. ah moom moom. man sama waa gaale nee mu inscrit si basket quoi. ah sa waa kër ñëw ñoo inscrit mu ne damaa jot forme basket quoi. ok pour ma lii nii. ah dëgg la de dëgg la de. mais a inscrire yow. yow lan nga yow. man lii nii joueur laa bëggoon doon et goal kay. goal waaw ah, Edouard Mendy quoi. Edouard mhm. mais non mais kon ñeen ñëpp ay sportif ngeen bëgg nekk quoi. Ah, chef man eh Rama ba yow wax nga sa tour ba pare xaaral mais man nag comme que gars li ñu ma gën a gisee quoi basketteur. waaw waaw mën naa dem def loolu sama papa su ma inculqué ma dem. xam nga xam nga xam nga basketteur bu siiw Sénégal. xam nga xamoo góor gi si Dieng. non man en fait man moom ay lii nii quoi basket moom. du sa du sa du sa du sa jab de ah. Mhm. ok léegi lan laa bëggoon wax léegi euh, xam nga activité yi am si centre bi. xam naa rek comme yan comme yan. fii mun nga jàng couture wala di ñëw fii di def lii nii am na sax fii nii salle de danse fële ne mu ngi noonu. bëri na waaw ay. daal danse bi ak couture bi rek ngeen xamagum lii bi informatique bi médiathèque bi ah. waaw ak li ñu même sax si temps vacances yi vacances ñëw fii di def ay affaire vacances yi ñun dañoo ñëw ak ñi ñuy jàngal affaire yu bëri sax. avant ñun ñuy defar fii ak uh-huh. ah, Achille moo leen fi andi. ah uh-huh. eh, mooy stop. sama gars yi loolu di ragal xam mus mus mus ñeme wala wax si mbooloo de ah. dañuy wax kay. ah non yéen kenn bëri waa parce que bi may ñëw gis naa leen sànq ngeen waa léegi ñu jox leen micro bi ñeme wala wax loolu ragal waaye léegi 35 am yow yaay yow yaay mujjee présenté wu après léegi ñu dem après léegi ñu kon ne waxtaan bi si yóbbu waxtaan bi feneen non gars yi amuñu fit dañoo ragal ñi am fit rek laa waxal fu mu nekk nii. non ñoom non man kay gis naa leen sànq a ngi wax man man fépp laa yem man tapet laa fépp. aja aja sama gars ñu avancé ñu avancé ñu avancé ñu avancé pour wàññil sa son balaa muy dugg. nga am. man 13 ans. 13 ans yaa ngi dëkku fan. Waxinaan Nimzane. Waxinaan Nimzane. Mhm. Euh, ban classe ngay def. quatrième. quatrième ban école ngay jàngee. Dabax Mali. Dabax Mali kon yéen ñëpp Dabax Mali ngeen nekk. Mhm. yéen ñëpp xamante ngeen. Mhm. non non dañoo xamante dañoo xamante da ngeen xamante quoi. ok léegi yow yow fan nga yaa ngi soogee ñëw centre bi. nan nan nga xamee centre bi. man dama xarit ñu indi ma fii. ñu andi la fii quoi léegi yow bi nga ñëwee fii lan nga gis. Hmm? ah gis ne fii calme na neex naa révisé te boo amee boo deful dara seen kër mën nga ñëw toog fii jël air xawal xawal wax bu baax quoi léegi yow fan nga gis sa bopp dans dix ans yi. waaw dans jàpp naa ne naa réussir. am samay réussir quoi naa réussir yow tamit sa yëfu bopp nga bëgg yor quoi. ba nga xam ne ma taxaw fenn naan damay ñaan. wala léegi yow yow lan mooy sa kii activité quoi lan ngay def quoi. man généralement soo jàngee ba pare lan mooy say activité ak lan mooy sa passion. eh. aja yegg ba yeggali. football rek ngay def doo lire doo def art doo déglu musique. non damay déglu rap damay déglu rap quoi. kan mooy sa chanteur favori. Ngaaka. Ah, ah non waxal lu la neex non waxal lu la neex. ah yow yaa ngi Samba Peuzé <laughs> ah, moom mooy Samba Peuzé ah. waaw léegi ok ñëpp présenté wu nañ léegi xam nga comme ni ma leen ko waxee nag ah. non garaawul garaawul comme ni ko waxee na am ñu complété fii nii. ñaam am lu complété fii quoi bu leen tànkaloo fii nii dañuy waxtaan rek lii lii lii lii du lu metti saa yow nu <laughs> mu tudd ko am sa lu xew. waaw dégg maa xoolee nii kat dafa yéeme waaye. <laughs> moom day xalaat daa dof. day day xalaat waaw léegi xoolal léegi dañuy waxtaan man ma expliquer leen ñun lan la ñuy def fii xam nga après man ma laajte ma am seen laaj ma gis-gis quoi comprendre nga non man maa ngi tudd comme ni mu ko waxee sànq maa ngi tudd Seydina Mouhamadou Ndiaye quoi non yow waxoo moom waxul mais grawul après ku nekk dina am opportunité wax. xam nga waaw boo leen amee li ngeen di ma laaj tamit ngeen laajte ma man ma leeral leen na ah. waaw graw leen na ñëpp si sigi voilà affaire bi commencé na nag comme ni ma ko waxee maa ngi tudd Seydina ah euh, Seydina Mouhamadou Ndiaye eh. leen sama gars yi damay mer de waaw maa ngi tudd Seydina Mouhamadou Ndiaye euh, man maa ngi dëkk Sicap nag dëkkuma dëkkuma dëkkuma Guédiawaye non Liberté <laughs> maa ngi dëkk Sicap Liberté 5 quoi Euh, donc man si membre fondateur yi laa bokk membre fondateur consortium jeunesse Sénégal quoi waaw euh, donc léegi ñun consortium jeunesse Sénégal ab association la bu dajalee ay association ay association de jeunes quoi comme gis ngeen ñun ay jeunes la ah. mais tamit dañuy dajale jeunes yi ndaw yi ba de tout âge mooy comme yéen ak comme ñun wala ak comme ñu nekk si intermédiaire bi de zéro à trente cinq ans quoi léegi ñun nag dañu am projet suñu projet mooy dañu bëgg di accompagner ci jàppale jeunes yi quoi si seen si seen cursus cursus donc maanaam si seen parcours mun na nekk ñi nga xamante ne ñu ngi école comme yéen mi nga xamante ne nekk ñu école ñi nga xamante ne tamit euh, ñu ngi université wala ñi nga xamante ne dañoo yore business wala dañoo yore euh, dañoo bëgg nekk ay entrepreneur quoi yor sa yëfu bopp moom la ñu woowee entrepreneur donc ñun tamit ay entrepreneur la noonu loolu leer na si yéen léegi nag dañoo xam benn projet bu ñu tuddee yaakaar moo tax ngeen soo leen ñëwee si bunte bi ñu bind espace jeune yaakaar donc yaakaar xam ngeen la mooy yaakaar mooy espoir quoi euh, léegi nag dañoo bëgg jeunes yi ñu ñu jàppale leen si éducation si formation si mise en relationnel pour que ëllëg si biir bu ñu bu ñu dans dix par exemple boo leen pare ngeen mun soit ngeen yox seen yëfu bopp nekk ay entrepreneur walla soit ngeen am seen métier pour ngeen mun a liggéey donc ñenn ñi mun na nekk entrepreneur ñenn ñi mun nañ nekk sportif ñenn ñi tamit mun nañ dem liggéey dans le secteur privé maanaam. nekk si at euh, si benn entreprise di fu liggéey mun nga fa nekk directeur mun nga fa nekk avocat et cetera mais nga am benn métier ba nga inséré wu daal comme sa nga am wécci donc loolu moo tax ñu def ko fi bëri nañ ay programme yu ñu yor yor nañ ay programme pour ay xale yor nañ ay programme pour ay mag waaw ñun nag loolu moo ñu fi andi quoi léegi nag comme ni mu leen ko waxee euh, projet bi pour mu fonctionner ak pour mu marché il faut ñuy jaj ñuy am yéen seen ay kaddu ak seen ay gis-gis comprendre ngeen est-ce may déglu. lan laa wax. non non bàyyi kii teg leen seen téléphone yi ngeen déglu moo sama gars yi. non yow tamit ni mu tudd waxaat ma tudd am teg si téléphone bi waaye saa yi mu tudd teg leen téléphone yi ñu waxtaan dañuy waxtaan tranquillement rek dugal ko fii voilà voilà c'est bon comprendre ngeen ah léegi. tegal téléphone nag waaye teg ko fii rek booy tegal ah, am sa tegal fii téléphone dëgg boobu dañuy waxtaan nii rek. xanaa ne xam naa ne yéen lii tàmmoo leen ko ngeen toog ngeen gis benn grand bu ñëw toog di waxtaan ak yéen xam naa ne tàmmoo leen ko n'est-ce pas waaw da nga foo ko tàmmee waaw waaw d'accord waaw léegi nañ concentré wu 40 minutes moo ñu dese li ñu dese bëreetul léegi ñu pare dañuy waxtaan rek léegi da ngeen di ma wax seen ay laaj da ngeen fekkee da am ay question da ngeen di ma ko posé après man tamit man am naa ay question yu ma am pour yéen quoi mm-hmm. comprendre ngeen ah waaw léegi mu jakarta yi nekk fene jakarta yi pour la mun naa dawal jakarta ah, mu waa e bu ne ko tamit bu ne ko tamit mu ne koy jëpp eh, eh, kenn suy wax dañuy déglu sama gars yi ñuy déglu wante yéen ay ay booy yu war a tërir la ngeen classe yéen wante rek kenn suy wax ñu déglu wante léegi waaw nga ne comme jakarta yi quoi bu nekkee tamit ne koy téye pour nga xam ne mën nañu kaa dawal ah. pour ut liggéey fu ñu war a livrer pour livrer ko ok waaw pour loolu nekk tamit pour loolu ma mun naa xaar daw la. mun nga ko dawal ah soo suñ la joxoon benn jakarta yow loo si def tey. bu ñu a am. xam ni kaw la tey ma ñëw ma jël caabi jakarta ma jox la yow loo si def waxaatal sa tour quoi. man Serigne Saliou si. waaw léegi suñ la joxoon benn jakarta bi yow loo si def. mun naa si cek-cek. mun nga si cek-cek. di si livré tamit. di si livré sama jàng quoi du ma dara. ko donc da nekk ay vacances scolaires da jàng boo wàccee nga dem def cek-cek mais est am nga permis sama permis génnagul. Ah, waaw waaw parce que pour nga dawal foog nga am permis ah. permis moto waaw. Ah. kéem moto permis quoi comprendre donc yow Jakarta bi rek nga moo doon sa laaj ah Saliou ok kan moo am laaj beneen laaj bu muy laaj. da ngay xalaat kenn kon yéen amoo leen laaj quoi da ngeen ruus nii. Ah. dama doon laaj am bâche yi nekk ci kaw kaw pour bâche yi oh non bâche yi dañ ko teg foofu parce que. événement yi bu amee waaw événement yi bu amee naaj yi. xam nga naaj bi moo tax ñu teg ko foofu quoi xam nga comme ça suñu rëb accueillir ay nit xam nga naaj bi su dalee si kaw nit yi day métti donc dañu teg bâche bi foofu noonu loolu pour loolu quoi. Achille waaw. non non leen beneen laaj par rapport ak non fii du pour ay <laughs> ay <laughs> appartement fii du pour lu ay man man yéen a ngi may laaj ay laaj yu yomb man ay laaj yu métti laa leen di laajee du leen baal dara man wax naa la ko nag koo am lu may laaj na ma ko laaj. duñ dugg fenn yu doo leen dugg fenn yu bëri wala. lu tax lu tax waaw. du ñu am accès fenn fii quoi pour mooy comme ça informatique ñu ne élève lañ. foofu si yoon war nañu fa am accès bu nekkee tamit da fay pour mun faa dugg pour dara. ñu wax ñu ko ñu nga xam ne ñu xam bu ñu def lu ñu fay def. bu fii est-ce que am na lu ñuy fay Achille. lépp gratuit de. fii tout est gratuit quoi en fait ñun. ñun dañoo loolu laa loolu laa leen di expliquer ñun dañoo bind projet bi pour yéen quoi pour ngeen am accès gratuitement à la formation ak à l'éducation comprendre quoi loolu moo tax ñun ñu ñëw si banlieue bi si Guédiawaye parce que dañoo seetlu ne nekk jeunes yi waxuma nag que ñun Sicap am na ay jeunes yu jàngul la non non ne tamit que Sicap am na ay jeunes yu amul yenn zones yi moo gën a metti pour am accès tax ñun ñu ñëw andi projet bi fii quoi pour yéen dëgg leen ba lu mu leen di wax nii de pour yéen xam nga ngeen mun see njëriñoo fii lépp gratuit quoi amul loo leen di fay amul loo leen di fay am na ay programme pour xale am na ay programme pour mag. am na ay programme volontariat am na ay programme pour pour ay entrepreneur mais doo leen fay dara comprendre nga moo tax bi ma ñëwee loolu laa leen laajte ma laajte leen lan ngeen xam ci centre bi ak yan activité ngeen dégg centre bi moom lay def quoi. mais comme tey comme machine yi quoi. Hmm. bu nekkee nga bëggoon comme koo xam ne dafa bëgg a ibbi après. waaw nga bëgg ñëw def nga xam te ñu lay jàng nu ñuy imprimer nu ñuy jëlee ay dossier def kii ko placer fii def yooyu noonu ñun fii loolu mooy loolu mooy njëriñu centre bi nag centre bi ak comme par boo bëggee lancer benn business. lan nag lan nga soxla en terme de structuration ñun loolu la foofu la leen di accompagner quoi. xam nga maa xam nga maa ngi leen di wax ñun ay entrepreneur lañ. xam nga ñun ay entrepreneur lañ quoi dañ si am nañ si jaar jaar dix ans di man am naa si dix ans dans expérience entrepreneuriat koi si ni ñuy bindee projet. ñu ñuy encaisser xaalis ñu ñuy dérouler projet ak ñu ñuy jàppale nit mais man nekkuma entrepreneur business comme par exemple yow ni nga bëggoon noonu di jënd ay jakarta di ko jaayaat di make profit di def xaalis di dundee si loolu ñun ay entrepreneur social lañ maanaam dañuy nekk si humanitaire ak si engagement citoyen moom moo tax ñu créer centre bi pour faciliter l' accès aux opportunités quoi comprendre ngeen li ma nekk di expliquer nii léegi léegi nag ñun si suñu jaar-jaar dafa am dafa am ay jàngat yu ñu si am xam nga jàngat yooyu nag moom la ñu bëggul partager ak ndaw yi pour ñoom tey ëllëg si biir suñu buggee nekk comme ay entrepreneur wala suñu buggee nekk ay professionnel ñu xam yoon bi quoi donc tey soo leen buggee wala soo leen amee seen mag bu yor business bi nga xam te ne dafa bëgg structuration xamul fu mu jëm da ngeen di ko conseil pour moom mu ñëw si centre bi mu gis Achille Achille dina ko booleel ak ku mu ko waral parce que ñun si ñetti affaire la ñuy yëni la ñuy yëngu ah euh, wax naa ko sànq muy accès mooy maanaam bokk xam tey boo amul accès éducation doo am accès si yenn opportunité xam nga yéen da ngeen di wax da ngeen bëgg nekk sportif boo amul accès terrain football ak bal nan ngay nekkee sportif nan ngay nekk footballeur xam nga loolu mooy li gën a important pour footballeur mooy nga am bal nga am goraas nga am équipement soo ko amul tey nan ngay nekkee footballeur ñun nag si loolu la ñuy liggéey nag dañuy bugg nit yi tey si lu ñu bugg doon ñu mun ci am accès ñu faciliter leen accès bi boobu mooy premier bi mooy bokk deuxième bi mooy jàng jàng bi nag du jàng école kese parce que xam nga Sénégal dañu dañoo gëmloo ne boo jàngul école amoo métier. doom dara xam nga tey gis ngeen Sadio Mané <laughs> man am na ay nit yu jàng ba dee. mais Sadio Mané fi ñuy dem bu ñu a dem. xam nga te loolu nag dañ koy yéex a xam. comprendre ne ils sont faits pour l' éducation ñi nga xamante ne dañuy dem école dem am bac dem université am métier am na ñi nga ne seen vocation du éducation à l' moom la woowee éducation par le divertissement mooy maanaam le sport. la musique xam nga Michael Jackson xam nga lan ma Youssou Ndour xam nga Youssou Ndour tey ñëpp ko xam si monde bi ah te jàngul et pourtant dund na si ba créé si organe de presse ba si fay ay nit comprendre ngeen li mu leen bëgg expliquer donc dafa am ñaari façon wu jàng am na jàng à l'école bu lay jox métier buy tax ëllëg si biir nga am liggéey et cetera am na jàng tamit bi nga xamante ne dafa nekk si aar xam nga moo tax fii mu am lépp luy aar am na fi lépp luy sport xam tamit am na fi parce que gis nañ ko ay nit Sadio Mané tabax na hôpital waaw am na ñu ay nit yu jàng ba dee tabaxuñu hôpital donc donc loolu la nag waa léegi ñun nag suñu yaakaar mooy xam nga eh Rama suñ suñ suñu yaakaar nag mooy dañoo bëgg nit yi fépp fi nga xamante ne tey mun nga si am xaalis pour yore sa bopp yore sa njaboot ñu jàppale la si ba yow ëllëg si biir nga mun si nekk moom moom la ñuy wax jàng mun na nekk jàng école wala mun na nekk jàng à travers le sport et léegi dernier bi nag mooy le réseau de volontariat ak la participation citoyenne xam nga nit soo nekkee ci gox ci gox bi nga bokk quoi donc boo nekkee ci gox gi pour gox bi avancer ñëppay àndandoo pour gox bi avancer donc moo tax ñuy wax la citoyenneté ñoom Achille gis nga leen ñoom dañuy def ay activité communautaire mooy dañuy yeewu gis fenn fu tilib ñu dem ñu nettoyal ko pour wax askan bi yëpp teg fa ay banc teg fa garab pour gars yi mun suñu sonnee ñu ñëw toog am fa kenn loolu moom mooy développé dëkk dëkk noonu lay développé nit yi ñëpp si jàpp si activité communautaire donc ñun dañu si boole programme de volontariat volontariat bi nag eh lu leen li mu leen di wax nii yéen xamoo leen lu bëri ñu ñu leen dégg ah volontariat mooy da lay jàngal. ay da ngay am ay compétence xam nga xam nga ngi nii tàmmoo leen wax kanamu mbooloo mhm. waaau tey soo leen ñëwee ci volonté yaa ñu jàngal leen nan ngeen di waxee si kanamu mbooloo su ma fi ñëwaatee dëwët man leen sama gars dama leen di enregistré pour ñu def benn podcast yéen ñëppay ñëw jël mic bi di wax quoi mhm. parce que xamoo leen ñu ngeen di waxee si kanamu mbooloo te loolu da leen ko jàngal te ay volonté yaa yooyu foofu ngeen di koy jàngee am na leneen tamit sa sa nekkin si mbedd mi wala sa nekkin si koñ bi loolu nga koy jàngee quoi donc ñun loolu lañ fi yor loolu lool loolu loolu la leen di proposer quoi léegi laajoon naa leen ko sànq ma nga leen di ko laajaat 2032 lan ngeen bëgg doon. 2032 wala ñu ngi 2022. waaw ah, ah non ñu 2020 wax ñu day wax ñu expliqué ñu yow nag fan nga gis sa bopp quoi dans 2032 yow. naa ma armée de l'air. armée de l'air uh-huh. waaw léegi yow Sénégal fan nga gis Sénégal. Sénégal fan ak fan laa gis nan nga bugg Sénégal man quoi yow tey suñu la joxoon benn baguette magique ne la dañ la jox baguette magique bi ñu ne la 2032 dañoo bugg Sénégal mu mel yow ni nga ko buggee. Ah, Sénégal damay changé kër yu màgget yi rek. ah kër yu màgget yi ngay njëkk defaraat quoi. ak agresseurs yi. sécurité bi. yokk ko. ak lan leen ramo bàyyi leen ramo ak lan. Euh, ak ak kii bi. ngi monsieur la soxna nii. non garaawul yàgg liir waxal rek amul problème bàyyi ñii ñii dañuy perturber garaawul. yàgg liir rek kii moromu soof. garaawul. <laughs> nu changé xaw a changé dëkk bi tuuti. xaw a changé dëkk bi dafa bëri agression trop. dafa bëri agression fu may dem rey bëri na trop fii rek dimanche passé ren nañ fi waaw ñu yàgg sécurité bi ah. waaw si télé géej bi donc te des fois ñu suñu ay grand frère dañuy dañuy dem bi di entraîner loolu wóorul woowu la kon sécurité bi moom loolu am solo la. waaw ma géej la am suuf si quoi en plus. ba même ñun sax suñu terrain bu ñuy football fii gars yi nañ tëdd ba terrain bi te bu yàggee sax terrain si dëkk bii lañ koy tëdd gars yi loolu sax dañ si war a jóg policiers yi. policiers yi terrain yi policiers yi dañ leen jàpp ba leen fee ñu bàyyi la loolu moom bàyyi ma loolu la mais mais attends mais da nga fay caution ah tamit. waaye lan la loolu. <laughs> léegi xaaral ma laajte leen xaaral xaaral. ramas bu ñuy ramas bi. teel a ramas bu ñuy teel a ramas ñii war nañ kaa bàyyi ay 21h ñuy remercié. waaw woo carte d'identité. man am naa carte d'identité. léegi yéen. ki ma ñaari yoon lépp nga am. mën na am carte d'identité scolaire am na carte d'identité scolaire. carte d'identité scolaire kay ñëpp am carte scolaire. non non. parce que Mbaye war naa toog si am carte am na 17 ans. mu ne 13 ans. waaye bàyyi leen jàmm. 13 ans déglu leen déglu leen bàyyi la ma laajte leen yéen en tant que ndaw. en plus Sénégalais yi. amuñu benn respect. amuñu benn respect. ah dem su guddi rek maa romb benn xale romb benn paa la xeer paa bi di ko dàqal ci. <laughs> Ah, loolu lépp loolu yëpp xam nga la loolu yëpp éducation la moo tax éducation éducation am solo quoi moo tax éducation léegi yéen yéen en tant ndaw man ngeen gisee Sénégal en tant que ndaw quoi en ndaw mooy chaque jour yéen a ngi yeewu fii yéen chaque jour en tant ndaw yéen en tant ndaw. Sénégal moom benn amul loo. Ah, Sénégal moom benn amul loo. ok léegi dañ koy def à tour de rôle léegi xoolal dañ koy def à tour de rôle ngeen wax ma ku nekk en tant que ndaw ndaw nan ngeen nan ngeen gisee kii waaw ah, dama naan ndox léegi Saliou si yow lay commencé mu def nii ah yow compo yow léegi yow ku nekk ah deux minutes maximum rek xam nga ku nekk en tant que ndaw nan nan nan nga gisee nan nga gisee Sénégal quoi en tant ndaw yow tey Sénégal moom premièrement amul loi. amul loi. fa dem si système baaxul. Mm. léegi nit da leen a sax yow nga rey war a àtte nga ñëw sa waa te mbokk ñu tëj la nga war a tëj benn vingt ans ba quinze ans xam nga loolu yow bu la spinir xam nga bu jógee xam nga mën nga xaa bay mm. te bu nekkee prison bi tamit bu nekkoon tamit comme fa nekkee yow mën na laa joxe ay liggéey yoo xam te ni dañ koy liggéeyal en même temps comme ay travaux ay travaux forcés koy mm. genre yooyu noonu bu léegi amoon nag mu moo xam ne day baax quoi nga boo génnee rek di nga mën a am si liggéey boobu wala dañ la a fay tam nga xam ne bu ñu fay dagg comme chinois yi nu ñuy def Chine Chine ak tamit yeneen dëkk tubaab yi nu ñuy def mais fi amu fi fii nga gis sax ñu war laa tëj 15 ans seen mbokk dem nga tëdd benn 2 ans seen mbokk ne ins bi tay koog genre yooyu noonu après léegi yow sa seen mbokk dem yow bu ñu fay si bu fay kii bi rek ku la war a rek juste ba dem gut avocat avocat bi dem tamit wax fa ay avocat moom am na mën nañ mën nañ ni boo demee tamit loolu mooy ko quoi lool ndax ci job bi la bokk xam nañ ko mais boo comme ay crime quoi yenn crime yi même xaalis sax xaalis war na tax ñu génne la mais tamit même si sax ni nga xam ne lay génnee day fekk tamit tayoo ko mais gis nga xam ne day xëy ni ko pare jam ko te kooku tamit jëloon sa intention pour xeex moom pare mu xeex moom lu ndaw mu jam ko comme fii parfois élèves yi comme yëmbal yaa ngi lu fa xewoon élève boobu ñu royoon foofu mm-hmm. instant boobu kooku ba tey dégg naa génn te mu ngi tam mbedd tam di dox léegi kooku tam ay mbokk tam koy gis loolu loolu du jaadu er, yow ku rey sa doom pare mu xëy su mu ngay tante ak moom chaque jour ngay tante ak moom gars yi gars yi moom justice bi kon war nañ si gën defar effort quoi am na ñoo xam ne ñu ngi nekk si def dara. duñ def dara ah. ah ñu leen di jàpp si yoo xam ne yu ñàkk fayra ñeen di jàppee. léegi yow la moo si sa gis ah si la moo si sa gis-gis yow. Ah, en daal nit boo koy jàpp yow war naa xam yow li yow loo koy jàppee ne nit ki am na ay njaboot. Mm-hmm. am na am na ay njaboot yoo xam ne wàcc na si kër gi nit daal boo koy jàpp ma sama xalaat daal laa loolu daal man. mais léegi yow la moo sa gis-gis yow en tant que ndaw ci Sénégal. sama gis sama gis-gis. tey xam nga chaque jour yaa ngi yeewu fii. waaw ah. xam nga la moo si sa gis-gis quoi yow chaque jour boo yeewu lan ngay gis lan ngay seetu lan ngay observer quoi. waaw. ak wala nan nga fi nekkee si senegal la maanaam kañ am nga fi gis-gis da ngay waxtaan ak sa gars yi nan la moo si sa gis-gis. man xam ma man dem ba après. non amul après déedéet amul daw amul daw amul daw eh, <laughs> yaa ngi na Sénégal na xam ne. daw yaa ngi daw grave bàyyi ko ba mu pare rek bàyyi ko ba mu pare grave acca acca waxaale waxaat waxate waale non man maa ngi tudd Pape Birima Mbaye. waaw léegi sa gis-gis quoi si Sénégal. waaw ah, moom sama gis-gis Sénégal moom pour man moom Sénégal moom méttiwul bu métti gars yi naan métti moom. Hmm. président moom deseer luñ ko dara. ndax hmm. ba mu fi nekkee ba léegi pétrole feeñ na fi. Hmm. leneen ak leneen feeñ na fi. pare jël nañ coupe am na ah, chance jël coupe bi waaw <laughs> ñun nees nees nees kese moo ñu dese. bu ñu demee wax gi man dinañ wax daal. nees kese moo ñu dese Macky Sall bi daal am nañ si coupe d'Afrique. Ah, waaw waaw acca bàyyi bàyyi mu yàggale gëm naa ni nees kese moo ñu pour ñu évoluer. <laughs> tolloog tolloog français. Ah. mais mais yow sa gis-gis yow en tant que en tant que ndaw yow tey en tant que ndaw quoi si say jaar-jaar la mooy sa gis-gis quoi ak tamit. gars yi dëkk bi suñu la waroon jàppale naka lañ lay jàppale yow en tant que ndaw quoi. Ah, comme kii nu mu ko waxee rek. Hmm. dañaa war a defaraat kii ni nga ko waxee sax insécurité yooyu noonu. Hmm, hmm. violence beeg. violence bi ah. sama xalaat sa xalaat ko ma yow nii pour yow nii gars yi am nga ab fii nii Sénégal am na matuwaay yi nga xamante ne yow ëllëg si biir euh, di nga mun nekk citoyen sénégalais quoi yow soo nekkee majeur soo màggee nii boo ma dee comme man par exemple. ni nga est-ce que dëkk bi am na matuwaay yi nga xamante ne tey soo soo dayee nii man li nga bëgg doon di nga ko doon quoi. ah j'espère que. ah wala gisagoo wala amagoo si lu leer quoi. Ah, loolu moom amagoo léegi nag loolu loolu nag xalaat xalaat xalaat xalaat si quoi. keneen kan keneen kan laa yow acca rama yow bëgg na ñàkk xorom en plus sax ki dafa ne xam nga Sénégal doo Guinée pétrole bi ba dëgg ndax xaw ma Aliou Sall ma koo xam ko ko wax noonu mais pétrole bu génne ku nekk dañu jox 400000. non non loolu gars yi ñoo koy tooñee nit yaa koy tooñee loolu. waaw pétrole na si. ah eh, te en plus sax kii Macky Sall dafa war a fay enseignants yi enseignants yi nag ci kii si kii bi public bi ndax waa public bi suñu defee grève dañu ñëw école bi ñu sànni ay xeer pour génnee ñu te ñu amul te kii du kii du respect. te en plus ñun. bàyyi ko mu yeggee bàyyi ko mu yeggee solo ki bëgg na jàng rek te te en plus ñun chaque mois day fay day fay kii 15000 francs ñu de sixième lay def mais 15000 francs la ñuy fay xamoo ñeneen ñi nag mais ñoo amuñu droit ñoo suñu école ñu génnee ndax public ak privé du benn. Macky Sall moo war a fay si boppam kii waa public yi si boppam ñu libéré ñu kii leen continuer seen njàng ndax ñoom. ëllëg dama bëgg a tekki ak ñun tamit ëllëg dama bëgg a tekki voilà man loolu nag laa am. waaw léegi yéen yéen nan ngeen di gisee grève yi yéen wala bon. nan nan ngeen di gisee grève yi instant bii. yow booy wax. parce que ñoom combo wuñ parce que public yi combo wuñ. ñoom defaguñu benn devoir nee benn devoir kese lañ def te ñun ñoo leen. premier devoir kese lañ def waaw waaw te ñun ñoo leen raw. te devoir yi génnul sax. te ñoom lu ñu wax dëgg la musée dañuy dem jàngale beneen école musée dañuy dem dem privé ñoom. Ah, ñu déglu woon te bàyyi ko moom mu wax. ñoom yeneen musée dañuy dem jàngale privé te ñoom tamit ñu bëgg ñoom jànguñu seen moroom di leen raw. ñoom suñ ñu passé ñoom ñu redoublé ñoom loolu la ñuy bañ ñoom tamit ñu gëree. waaw waaw dëgg la de nit moom loolu moom ñun nag moom la ñuy wax loolu la ñuy wax accès ñun moom la ñuy woowee accès bokk quoi bu fekkee dafa am ñi nga xamante ne parce que école publique lañ nekk. xam nga amuñu même accès yi ci opportunité ndax grève yi xam nga daf leen di léser loolu moom mooy andi lu ñuy wax inégalité est-ce que xam nga la mooy inégalité. loolu quoi. waaw xam nga ne tey bon waxuma ko am na am na fooy juddu si Sénégal xam nga boo fa juddoo da ngay nekk si inégalité parce que opportunité yi du fa si te loolu baaxul ci réew xam nga te opportunité ñëpp ñëpp ko war a am quoi parce que ëllëg si biir mooy maanaam booy dem booy dem booy dem booy dem jàngi xam nga tey boo leen doon dem examen yow yow amoo bic ki am bic ki am bic moo ëpp chance am ko ki amul bic waaw moo tax ñëpp suñu dem examen dañuy yor bic n'est-ce pas waaw loolu la quoi ba ki ki dem examen moom ñëpp dafa war a yorendoo bic loolu moo tax ñuy wax inégalité bi quoi pour maasaale affaire bi léegi affaire bi léegi mu jeex 25 minutes moo des mais bàyyi ñu def ko si 15 minutes quoi li test bi la woon rek xam nga affaire bi commencé gul idée bi mooy euh, dañoo bëgg comme ni mu leen ko expliqué sànq déjà technologie yi. dafa am ay technologies yu bees yi nga xamante ne yéen seen génération xam ngeen ko du yéen ñëpp am ngeen TikTok waaw monde bi nag foofu lay toll si dafa am ay technologies yi nga xamante foofu la wax yi di amee foofu la lépp di xewee quoi te il faut ñu teel leen ko jàngal yéen teel ko xam moo tax man ma bëggoon ngeen ngeen déglu leen li mu leen wax nii dafa important nag de maa leen di laajte fii ak 2032 nag fan ngeen di gisee ngeen di gisee seen bopp waaw man ñun daal ñun soo seyoon ñun ñii. bis hmm. nekk ba war naa yor sa yëf bopp. sa yëf moom yéen ñëpp ay entrepreneur ngeen bëgg nekk. avant sa yëf bopp nag gudd fan. Ah, waaw ak ak wégu yaram bi ah. waaw léegi at léegi baa ñu def dernière partie bi quoi léegi dernière partie bi mooy euh, centre bi xam nga wax naa centre bi lu muy def. xam nga xam na laaj naa leen seen gis-gis par rapport ak Sénégal après xam nga ku nekk laaj naa la tamit fan nga gis sa bopp dans dix ans n'est-ce pas comprendre ngeen ah léegi nag laaj bu mujj bi mooy. centre bi ak ay ñun ay man wala ay achid nan lañ leen mën a jàppalee par rapport ak seeni i gis-gis ak par rapport ak seen bëgg-bëgg. man bi de ah. waaw da kaa teg bët de ah. waaw aca aca ñu déglu nag gars ñu dégluwante ah. aca waaw aca waxal. bi yow. léegi c'est-à-dire naka si naka da ngeen di booy wax day wax bi day leer. xam nga jar na xam liggéey ni ko da lekk teg ko fii quoi ndax bu yàggee day yàqu. day kuule modèle day kuule bu yàggee day yàqu. waaw léegi après léegi nag après bu nekkee ñoom da ngaa bëgg a jël pour jox ko si. waaw hmm. ah, man moom gis sama bopp moom centre moom jakartaay moom ah ni ko tamit kay jël pour liggéey wax na pour pour kii bi la quoi santé bi. <laughs> gars yi ñuy déglu woon te partie bi dafa xaw a dimbali ma dama ko soxla pour sama sama liggéey rek quoi moo tax dimbali ma ñu def ko mu sérieux dernière partie bi rek quoi dañ koy def tour de table comme ni mu leen ko expliqué nii ku nekk ngeen expliqué centre bi tey nan la leen mën a jàppale par rapport ak yéen fi ngeen toll nii ak par rapport ak seen ëllëg quoi après ñun lañ si nan lañ si war a mun a def pour mu mun a nekk du noonu ah acca waaw ah, mooy comme si jagar day quoi bu nekkee tamit ñoom nga bëgg jël pour pour nit ñi fii pour jeunes yi nga xam ne nga bu ñu liggéey quoi pour ñoom pour ñoom seen des fois seen quelques pour bu ñu bëggee ñoom fi ay koo xam ne ni ko mën dox genre yooyu noonu a jógee fa sori quoi comme ay comme ay Dakar fii rek nga xam fii la yem yow instant bi moom yow centre bi su la mënoon jàppale mooy jakarta bi quoi mu jàppale la mu jox la benn jakarta nga si def livraison ak cag-cag après nga am si tuuti wéccit quoi léegi xaalis boobu suñu la ko joxee loo si def sama yaay la si jàppale rek sa yaay nga si jàppale sama rak yu sa rak yu merci Saliou acca da wax si tur nag quoi waaw maa ngi tudd waxal bu baax waxal bu baax moom sama li moom bëggoon moom ñu jàppale moom moom Ah, ñu jëndal ma ay dàll équipement. dina ma déglu question bi question bi mooy centre bi espace bi. ah waaw centre bi voilà centre bi. espace bi ngay ñëw nii comme ni déglu leen déglu eh, sama gars yi xam naa li muy wax mais foofu ah, la quoi xam naa moo tax ma ko carré xam dama nekk centre bi comme yow déglu leen waaye s'il vous plaît. comme ni nga ñëwee gis ne fii dafa calme pour ngeen réviser wala pour ngeen toog am air bu frais xam nga loolu centre bi mu leen di jàppale si ne centre bi ni ngeen ko gisee ak li mu leen expliqué si li nga xamante ñun moom la ñu comme projet wala comme activité loolu tey nan yow nan nga gisee centre bi mën na la si jàppale par rapport ak yow fii ak 2032 nga doon ki nga bëgg doon. waaw comme Zal kon nu ko waxee. déedéet pas comme Zal yow sa boss la. déedéet comme Zal nu mu ko waxee rek ma moom ñoo bokk avis. waaw lan mooy la Zal Hm? ak lan la. non ak lan la jakartaay comme que man ñun mën nañ dawal kay ñu jox ñu jakartaay ñu liggéey ko. liggéey ko quoi mais mais est-ce que affaire salle médiathèque informatique. Eh xaaral est-ce que yéen yéen a ngi si dem am yéen a ngi si am accès si éducation informatique bi quoi. non moom mosuma fi am accès pour dugg. mais est-ce la non. intéressé na mu kay. mais est-ce que laajte nga pour xam nañ ngay def pour bénéficier wu médiathèque bi. lu tax laajte woo. ah. dara ñoo foogoon ne fii lu tax laajte woo. mais ma foogoon ne fii boo ñëwee da ngay fay inscrit. da ngay fay inscrit waaw ok d'accord. acca joxal Rama Rama xam nga question bi non. ah waxal. ñun centre bi nu mu la ay jàppale. par rapport ak ñu li ñuy def ak par rapport ak li ñu fi wax yëpp quoi par rapport ak yow fi nga bëgg nekk. centre bi moom nous a renseigné beaucoup dans la vie. te mm. en plus suñu amul opportunité sax kii di réviser suñu kër mënoon ñëw fi réviser. Mm. Euh, en plus centre bi dafa xaw a jege suñu école bi suñu wàccee ba suñu amee intercalé mën nañ ñëw fii réviser après démarche. parce que on a dans la vie. waxal bu baax parce que on a dit dans la vie il faut avoir ces choses-là hmm. les principaux devoirs dans la vie en commun sont la solidarité l'hospitalité l'assistance le zahd la dignité le patriotisme la discussion le respect et de l'autre dafa mais nan nga buggee en dehors de centre bi leneen nu nu la koy jàppale quoi centre bi ah? si activité yi fa am nan nga buggee ñu jàpp continuer jàppale la pour yow li nga mun a doon quoi euh, si informatique bi informatique bi mm-hmm. ñu gën si jàppale quoi mm-hmm. ban niveau nga si moo si niveau bu baax quoi niveau grand commençant nga doxal mm-hmm. doxal am sa léegi éclaire ñu nan lañ lay jàppale centre bi centre bi quoi nan activité yi fi nekk centre bi nan la la a jàppale ok yéen ñëpp wax ngeen Jakarta bi ok loolu dégg nañ ko mais en dehors sax ça kon man sama ñaar doomu ndey lu tabaxee rek <laughs> <laughs> Eh, bàyyi jàmm bàyyi jàmm ma kon ñaañi ni nga ko waxee rek uh-huh. moom dégarage ak garaaw ay man lii daal man moo ëpp solo ko informatique bi ça ah. ah, man moo ëpp moom tamit ma laajaat la même laaj bi parce que li ngeen xamul mooy déglu leen quoi li ngeen xamul lii nii li may enregistré nii déglu leen quoi li may enregistré nii dama koy yóbbu ci conseil d'administration bi pour ñu xool ñun nan la ñuy continuer di améliorer wu quoi mm-hmm. parce que li ngeen ma wax ni mooy maanaam ñun ñu ñuy joxe information bi doyul parce que ñenn ñi da ngeen di fi ñëw mais da ngeen foog naa fay da di fay en tout cas ñun waa waa waa waa consortium amul activité bi ñuy def bi nga xamante ne nit day fay comprendre ngeen amul activité bi ñuy def bi nga xamante ne nit day fay comprendre ngeen quoi moo tax ñu la leen ñun ay entrepreneurs sociaux leen ñun dañuy joxe accès éducation formation ak réseau gratuitement quoi parce que dafa amaay ay nit yi nga xamante ne amuñu njëriñ bi comprendre ngeen loolu ah léegi acca wax yu neex yi acca acca eh, yëgali ah, donc salle informatique waaw parce que da nga ah, dañuy fay waaw dañuy fay waaw loolu lañ foogoon mën a kii ah. mais léegi xam nga ne doo leen fay léegi léegi li saa moom léegi xam ne ko léegi lan lan lan ngeen di def après ah lan ngeen di def ma léegi day tax léegi bi ñu amatee pause ñu bañ a toog fii léegi ñuy jéem a laajte fii léegi lan la ñu commencé dugg di xool li ñuy xool léegi avant avant ñuy dem si quatre ñu mujjee tamit quoi parce que comme ça ñu avancer en même euh, boo leen dooyee fii sama gars yi boo leen ñëwee fii nit dam dama leen di ju ah, yéen ñëpp da ne da ngeen bëgg yox sa fu bopp waaw mm-hmm. ah, mooy yox sa yëfu bopp dafa am na ngay xalaate xam nga quoi dafa am benn façon d'esprit état d'esprit booy am quoi nit boo leen ñëwee fii da ngeen war a dugg ngeen laaj ci information Sénégal loolu tamit beneen problème ndaw yi ñoom dañuy toog rek di xaar ñu leen di jox information yi yaa ma yéen ñëw ngeen ci centre bi mm-hmm. gis ngeen espace yi nii yëpp man su ma ñëwul woon wax ak yéen doo leen xam lii nii n'est-ce pas ah. waaw loolu déjà moo dul woon déjà loolu du woon ñoon quoi que moom mooy déplacé wu ñëw wax ak yéen pour expliquer leen fi ñëwee gis ngeen espace bi di laaj soit Achille wala ngeen ñëw fii ngeen laajte ngeen laajte ne waaw man ñun de dañoo gis fii salle d'informatique gis lii et cetera dañoo bëggoon xam ni mu demee dans les détails quoi comme ça ngeen am information yi ngeen soxla ak par rapport ak yéen li leen mun jëriñ ngeen ut ngeen jëfandoo ko encore une fois fi amul dara lu ñuy fay pour ce qui concerne le consortium comprendre donc loolu la quoi léegi yow salle informatique bi rek quoi. waaw éducation éducation média. daal man loolu laa bëgg a xam daal man si salle bi. si salle bi waaw ah. ak lan. Hmm, man man machine daal man. machine moo lay intéressé quoi moo moo ma sama ñetti gars yi ñu xool kan moo si kan moo si bomb. ndox jakarta nag. <laughs> non jakarta kenn dégg nañ ko bu baax acca acca. man tamit salle informatique. kan moo am leneen lu muy wax en dehors de jakarta ak salle informatique. Jokalante waxoo ko jox ko joxal Paul la Paul la da wax sa tur. waxal sa tur. nga jógee quoi. Paul Mendy laa. Paul Mendy léegi yow centre bi nan la la mënoon njëriñoo tey. toujours salle informatique bi ñëpp dégg nañ Jakarta bi quoi. hein. Paul. waaw waa léegi waaw léegi wax ñu benn mot léegi au moins wax ñu benn moo yow rek yaa fi waxul quoi comme sa gis-gis si centre bi sa gis-gis euh, si fii nii et yow la moo si sa gis-gis quoi. ah centre bi moom ça va. parce que gis naa ni centre bi moom amul benn problème heure bu ñu ñëwee dañuy bàyyi ñu dugg après ñu enregistré suñ tur yi fee suñ numéro téléphone genre. heure bu ñu ñëwee daal ñun daal daanaka fii la ñuy ñëw toog suñ toogul fii ñu ngi si kaw. dégg <laughs> nga ñëw fii daal pour réviser genre. yooyu quoi waaw. mais léegi yow centre bi nan si mun a gën a njëriñoo. centre bi. Ah. Hmm. garaaw. garaaw. <laughs> ñaan ñaan yaa yaa yaa koy clôturer yaa koy avant dernier clôturer Rama non am naa am naa beneen moom dina am lu muy wax Rama gars yi dañ la déglu tamit déglu leen waaw waaw loolu la ko quoi yaa fi wax respect sànq non respect mooy nga wax ñu déglu la keneen ki wax nga déglu ko. voilà noonu la acca. waaw ah, sàndarma moom cool na. Hmm, cool na waaw cool la keñ loolu keñ xam nañ ko. tante bi cool la keñ léegi nag léegi si si xoolal rek li mu leen wax de xoolal sama gars déglu leen lu mu leen di wax nii quoi parce que xam nga yéen en tant ndaw doo leen def genre exercice yi quoi xool gis seen bopp ëllëg si biir lan ngeen bëgg doon. xam nga affaire yooyu quoi c'est la première fois ngeen di am genre waxtaan yi n'est-ce pas waaw moo tax nag quoi léegi nag ëllëg si pour préparer seen bopp yi la quoi léegi yow comme ni ma la ko waxee xam yaa ngi ne yow da nga bëgg nekk pro dans dix ans. mooy quoi léegi centre bi tey sa ñëw si centre bi en dehors de réviser nan nga gis ne centre bi moom mun na la jàppale pour tey nga nekk pro par exemple dans dix ans quoi. centre bi comme suñ ñëwee fii toog léegi ñu ñu réviser aussi ak ñu am luñ soxla ba mun nañ dem feneen ñu laajte ko. Hmm. ñoom suñ ko amee ñu jox ñu ko. mais est-ce nga mus ngeen def mus nga def loolu dem fële kii bi laajte quoi ay information lu tax. xaw ma ko woon. xaw ma ko woon quoi. da nga ra wusoon wala. parce que rusuma de parce que ma demee wii bi sax bi code wii bi ren moo leen fa bi ah. waaw mais loolu tamit loolu bokk na si leen di fi andi ah. internet bi. Ah, mais loolu amal na leen njëriñ. amal na leen njëriñ ah. machine yi. benn côté am আমরা আমরা importance ndax benn saa waay yow bi ñuy recherché lii waay Moussa Bassène dañuy exposé. ñuy lire maanaam benn saa lay lire am yow foo xam ne de am na ay mots yoo xam daa difficile. Mm-hmm. boo toog fii lire yow benn saa mu mën daa dugg di andi ah, <laughs> ah, <laughs> romance bi ah. waaw waaw acca acca léegi nag xoolal dernière question bi léegi mi ngi nii quoi ñu pare ah. nan ngeen gisee rama nekkal fii nekkal fii rama aja nekkal fii nekkal fii léegi nan ngeen gisee liñ def nii léegi léegi waxtaan bi nii nan lan moo ngeen ko gisee ko yéen waxtaan bi ñu jot a am nii quoi c'est la première fois ngeen am genre waxtaan yi nii n'est-ce pas nan ngeen ko gisee tey quoi waxtaan baax na si ñëpp ñu toog groupe ba xanaa na dem soo ko nañ tëgg benn asos nañ toog foofu di wax hmm. mais na toog nit nit di wax loolu baax na si loolu. baax na si quoi. waaw mais mais jotaay bi tamit mu mel dafa baax. mais yaa gis nit ni ñu toogee nii wax xanaa ñi kese yaa ngi nit ñi miinante wuñu ma jotaay moo tax ñi jël fee miinante di ka fooree. jotaay bi dafa neex fii. keneen ku lu muy wax rama. Mm-hmm. bi lii exercice bi ñu def nii quoi lan moo si sa gis-gis quoi waxtaan bi nii waxtaan nii et cetera ndax ñooy bokk benn école di romatuñu te xamante ah, nga si gis yow yaa koy jeexal acca ah, <laughs> Saliou tëj ko tëj ko tëjalal sa gars yi yaa wax pour ñoom ñëpp ah ñoom witti wala wala yow. bàyyal tëj ko bàyyi ko tëj ko gars yi moom ñu wax moom. am na solo quoi bu leen ci mënoon bu ñu si mënoon jàppale moom comme affaire informatique beeg noonu. Hmm. jàppale moom jël ah. jël quoi soxla bi nag yow genre waxtaan yi nii yaa moo si sa gis-gis c'est la première fois nga am genre moom dafa baax quoi comme mag nga ñëw toog si ay di leen wax di leen wax la mooy àdduna. li hmm. mën a wax fi ñu teg ak yow tam fi nga jaar <laughs> mën di def yenn yi quoi ndax yow li ngeen wax dafa am solo quoi yenn mais Achille aca boog bismillah après man ma clôturer ko rek mu jeex ok donc euh, kontaan naa ci trop donc fierté la waaw le fait que ngeen di ñëw di fréquenter espace bi donc euh, déglu nañu seeni seen i mbébét donc da ngeen di jàpp ne fii amul lenn loo leen di fay donc euh, man maa ngi defaral l'informatique pour les enfants donc chaque mercredi ak samedi donc mercredi de 15 à 17 heures samedi de midi à 14 heures donc peut-être jotagoo leen ci information boobu donc ñu wax leen tam fii lépp loo leen bëgg fii donc il suffit juste de demander donc on vous met à les yàlla a la médiathèque loolu lañ ko looloo tax ñu def ko foofu ci kaw maanaam pour ngeen toog app dañ koy outiller ak ay livre donc ay livres di ngeen ñëw toog lire machine yi ñu fa def pour seen soo leen di def ay recherche suñu soo leen amee exposé soo leen amee leen loo xam ne da ngeen ko bëgg a def donc mu ngeen connecté wu ci machine yi donc man je serai là-bas au niveau de la médiathèque pour vous aider donc en tout cas centre bi yéen a ko war a dundal donc yenay avenir u ëllëg d'ici 2032 bëgg nañu fii ñu gis fii ay technocrate bëgg nañ ñu gis fi tam ay entrepreneur social comme ah dina ah donc di dimbali dimbali population bi parce que xale da ngay am engagement maanaam sa sa gox bi nga dëkk da ngay jéem a influencer donc dañ leen war a teel a defaral ay life skill comme ça ngeen teel a doon ay leader ah donc suñu tàggatee ba ngeen di ndaw donc d'ici dix ans da ngeen di doon ay leader yu confirmé voilà donc na lii yow c'est tellement joli ñoo ko bokk agir mec ah, bul commencer ay remerciements rek yow xam nga bul jëlee affaire bi quoi donc noonu la demee sama gars yi xam nga comme ni ma ko waxee si début bi acca moom ñu ngi ñu ngi ñu ngi pare quoi ñu concentré wu ñun ñëpp rek ñu concentré wu ñun mu wax leen quoi xam nga. yéen seen wàllu bopp yéen a ngi wax ne que. Ah, ah, da da nga ah, <laughs> rek. raw ko moom bu ñëwee mu defee euh, comme ni ma koy waxee yéen seen wàllu bopp yéen a ngi wax ne que euh, da ngeen di bokk école mais sujul woon jotaay bii nii tey doo leen xamante voilà man loolu bokk na si li taxoon mën a leen dañ dañu woo ñaari système yu ñu ñëw parce que boo leen ñëwee si genre espace yi nii. pour loolu la pour ngeen di gën a xamante ak ay nit parce que xam nga la moo am am solo si xamante da ngay xamante ak nit ki nga xamante ne xëy na sa wërsëg si moom lay jaar comprendre ëllëg si biir doo xam mun nga ñëw tey ngay nga nekk footballeur nga war a dem signer benn contrat nga dem fi kii di signer sa contrat mu nekk rama mu ne la eh waaye yow saa yi et cetera et ngeen defal seen monde mooy fonctionner noonu quoi moo tax boo leen ñëwee fii boo leen gisee seen morom xam naa ne nag da amagul comme Achille ni mu koy waxee skills yi mooy maanaam compétence yi pour mun a dem xool nan ngeen di miinanteeg nit nan ngeen di xamanteeg nit comme man ñu ma ñëwee toog nii xam nga ba dajale leen ba ñu waxtaan loolu dañ leen di ko jàngal te loolu tamit bokk na si li nga man maa ngi leen di di remercier comme ni mu la ko waxee lii xam naa góob ma ne dina dina dinaa ko publier mais dama dinaa ko jent xam nga parce que man sama liggéey li def si noonu la liggéeyee ñun dañuy laaj nit ndaw yi ndaw yi wax ñu après ñu xool lan la ñu mën a def en fonction de ndaw yi ñoom la ñu bëgg parce que xam boo boo boo nekkee xale am na benn affaire bi nga xamante ne boo boo boo nekkee xale généralement gars yi duñ la laajte dañuy ñëw ne la defal lii defal lii defal lii alors que xëy na yow li nga bugg wala yow compétence yi nga am wala talent yi nga am correspondre ak gars yi lu ñuy bëgg li lay wax ko ngay def te ñun nag bëgguñu ñu bëgguñu def loolu quoi donc donc voilà léegi centre bi comme ak Achille nu mu ko waxee comme gars yi ñu ngi ko waxee mu ngi fii soo fi ñëwee da ngeen di laajte yi comme ñu waxee rien n'est gratuit rien n'est payant tout est gratuit quoi donc man maa ngi tudd Seydina man nag de temps en temps laay ñëw comme ni ma fëlee tey xam <laughs> nga depuis semaine dernière laa si centre bi ñu ngi fi fekk ñoom laay toogal ñoom laay waxtaanal wax mu ñoom seen gis-gis xam nga parce que yéen centre bi pour yéen la yéen a fi xam nga yéen fii ñëw espace bi yéen a ko moom donc dañu bëggoon xam benn comment ça marche avec vous ñun tamit lan la ñu war a def tamit ñu amélioré wu parce que nit lépp looy def tamit war nga moo nga xool nooy def muy gën a di continuer di gën a baax te loolu munoo ko def te tànk laajoo nit yi fii ñëw ko te nag maa leen di wax bu leen hésité nag yéen yéenay ndawu tey yéenay ëllëgu suba waaw avenir u ëllëg quoi donc xam nga donc seen avenir yéen a koy jël en charge déjà présent monde bi dafa nekk di changer monde bi ni mu nekkee di changer xam nga gis ngeen ko ñun man bon waxuñu pour dañuy jaay suñu bopp ko amee ñun suñu jaajaar nekkul jaajaar habituel bi te taxul ñu ci ciy konne di si di si góogóorlu te yéen tamit mun ngeen konne di mel noonu mais il faut ngeen ngeen ngeen bëgg ko ba pare tamit nag il faut ngeen investir aussi parce que toog wax bi neex na xam nga toog wax dafa yomb moom xam nga dama bëgg nekk grand joueur mais yow mat naa pour dem entraîner pendant que ñëpp ngi nelaw mm. loolu leneen la waaw am nga loolu leneen la bu ñëpp bëgg na nekk grand joueur mais koo si wax yeewu 6 heures du matin nga dem doy géej mu ne waaye dama gëmantu rek dama sonn te loolu mooy jaar bi tey pour nga nekk grand joueur donc effort bi ak motivation bi yooyu noonu ñëpp ak discipline bi xam nga il faut il faut ngeen boole ko si quoi léegi su ko si defee maa leen di remercier xam nga sama gars yi da di yuuxu rek dañuy compter ñu tas quoi <laughs>